Seex Mbàkke ma di sab ma way man xëy naa la gontu naa la jànq naa la masul see jaloore gaynde faat ma ndax yàlla aar ma Seex Mbàkke Seex Mbàkke Seex Ahmadu Mbàkke gaynde faat ma sëriñ Seex Mbàkke xajul fu sew te foo ko jëw nu caw la kon ne leen xiim xutbul waraala sëriñ seex mbàkke gaynde faatma ahmadu gaynde faatma sëriñ mbàkke soxna loo mën a teeru gante xam teraanga kum yewi nag ngërët ba am yaraanga moo mën a teeru gante xam teraanga kum ngërët ba am yaraanga moo a teeru gante xam teraanga comme yow wi nag ngërët ba am yaraanga jàmbaari lislaam nga dis gor muñ te yaatu lewet yaakaari ñëpp nga ndax doo gàntu doo gënale aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi nuyu kenn ku ne ci turam santam tey jiital ci nuyoo boobu sëriñ Muntaxa Mbakel Bachir di ko ñaanal saa borom dolli koo kàttanal tey dolli koo taw féexal ba mboolem naal yoo xam ne naal na ko ci mottali liggéey sëriñ Tuubaa bi mu yeggale lépp te ànd kook mboolem taalibe yi naka noonu lañ koy ñaanale sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne moo nekk ci bopp kilifteefu Daaru Xuddoos di ko ñaanal saa borom dolli koo dëgëral moom it ba mu yeggale mbooleem yéen joo xam ni gars yi fi mës sa jaar am nañ ko ci liggéey sëriñ Moussa naka noonu lañ koy ñaanale sëriñ Abdourahmane mi nga xam ne moo nekk ci bopp kilifteefu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom it di ko ñaanal saa boroom dolli koo kattanal ba mboolem yéene joo xam ni am na ko ci mottali liggéey bi mu def ko ci teegi bakkanam te ànd kook mboolem taalibe yi di ko ñaanal it ju baax ji sëriñ Moustapha Mbackel Karim mi nga xam ni moom it moo nekk ci bopp kilifteefu mboolem njabootu sëriñ Mbacke soxna Lo di ko ñaanal moom it saa borom dolli koo sàmm bu ñu déggee xasida yooyu ñu doon yëkkati léegi ñu xam ni am na bés bu mag bu ñu waaj bés boobu le mooy ban muy bésu fàttaliku ak a ñaanal jàmbaari lislaam di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ni umma islam bépp la fi nekkaloon waaye te mu ràññeeku woon ci ak dundam muy xeex mboolem loo xam ne lu bon la moom nag ñu koy fàttaliku ci ab bés boo xam ni le onze mars lay doon fii ci Taïf ñu ciy fàttaliku Serigne Cheikh ak mbooleem doomam yu baax yi jiitu ji ñëpp dale ko ci Serigne Mbacké Mohamed Cheikh Abdoul Fattah mi nga xamni mo fi joge rek bu yagut lol ak mbollem njabootuk Serigne Cheikh gi nga xamni ñoo jiitu gu jep bis bobu le nak ni ñu koy dundale moy ci njàngum alquran njàngum xasida istighfar ak salatu ala nabi non rek lañ ko fassiyene yéenee dugge waaye te danañ ci amal programme bu mag te it ñu ci and ak euh, li nga xamni mo ci gëna fess di isbu tarikhia daaru qudus ñu war ko and ak ñom wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen bokki talibi no noo ngi leen di nuyu di len siyaare di leen woote ci woote bu mag bo xana ñi ngi len ci wo ci turu Serigne Cheikh Mbacke mohammed mi président section tayuf woote bi nak ñi ngi koy woote ci ndigal Serigne muntaha Mbacke khalifa général de mourid ak Serigne Ahmadou mukhtar khalifa dar ak Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xana bi moy jewri ñi dar Khoudoos di ko itam ci turu Serigne Abdourahmane mi nga xane mo koy jité di xalifab sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ci loolu sëriñ Cheikh mi ngi leen di fàttali ci turu sëriñ Moustapha Mbacke as suburi bam sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mi président fédération bi di leen woo ci màggal gu mag gi ñuy waaj a defal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke. ñu ngi koy def woote itam ci turu sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed mi jëwriñi njabootu sëriñ Mbacke soxna loo section taif ño len di wo gor ak jigen yéen bokki taalibe bi yëpp yéen ñi bokk ci federation bi yëpp ñi ngi len ci wo ci magal gi nga xamne mom lañu bëgg defal serigne Cheikh Ahmadou Mbacké di ci fataliku mok serigne mohammed Mbacké taawam ba ak serigne Abdou Fatah Mbacké ak njabootuk serigne Cheikh gi nga xam bi ñepp dañu dawlu ji moy ñu góor ak ñu jigen ñepp ñi ngi leen fasale ci ñaanal leen yàlla fañ nekk yàlla dolli seen yërmane dolli seen i daraja dolli seen i leer kon ñu ngi woo jullit yëpp kuy wax asadu an laa ilaha illallah ndax sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké kenn ku ne xam ne ne nekku fi woon ngir tariixa nekku fi woon ngir sëtub sëñ Tuubaa la dafay newoon ngir jullit yëpp foofu mu lislaam masaa soxla gis nañ fa sëriñ Cheikh gis nañ fa taxawaayam gis nañ fa jëfam kon ummal islamique bi yëpp ñu ngi leen di ñaan la onze ci weer wii ñu jëm muy 11 mars ci 2019 bii foofu waaye mën a nekk te mën a ñëw ci bis boobu ñu ngi ñaan nga ñëw teew fi waaye mun nekk te munoo ñëw itam ñoo ngi sàkku ci yow nga jàng ci ay alxuraan la nga man yéene sëriñ Cheikh bi ak njabootam ñi jàng ca boo ca mënul lool te mën def ay salaatu ala nabi nga def sa kemtalaay la nga mën ci salaatu ala te yore sëriñ Cheikh Mouhamad Mbacké ak njabootam nga xam ne gii ñoo ko fa jiitu ak njaboot gi nag taalibe yeeg yëpp yi nga xam ne dañ ak ci njabootam lañ te jiitu ñu fasaale leen. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ah, ñoo ngi dugg nag ci woote bu rëy boobu nga xam ne ah, moom lañuy woote fii ci Taïf ah, ci ndigalul soxna Ndeye Fatma Mbacke mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci biir fédération bi ci wilaya national ci kilifteenu soxna Bomba Silla mi nga xam ne moo jiite section Taïf soxna Bomba nee mi ngi woo. jigéen ñépp jullit yépp amul bàyyul kenn bàyyul fenn bàyyul ñenn ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñuy amal bisub sëñ Cheikh Gaye suñ jàmbaar ji sëñ Cheikh Gaye Ndeye Fatma ak sëñ Bàkke Mohamed ah, ñu di ko amal fii nag ci tey le 11 mars 2019 nee na mi ngi woo section yi ci senegal gépp nag yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew nee na bàyyiwul kenn nee na mi ngi woo jigéen ñépp nee na mi ngi woo taalibe yi mi ngi woo jullit yépp ci bis boobu nga xam ne amuñu lu may moom ñu di ci fàttaliku suñ jàmbaar yooyu nga xam ne mooy sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak sëñ Bàkke Mohamed ak Cheikh Abdou Fattah ak ak waa waa kër sëñ Cheikh Gaynde Fatma gépp di ñaan yàlla suñ borom bi xaaral leen àjjana yi gën a kawee ci àjjana tax ñu seen barke nee na soxna Bamba nee na mi ngi woo ñëpp ci ndigalu soxna Ndey Fatma Mbàkke mi nga xam ne wilaaya mi nga xam ne mooy ñu jiite ci sec ci fédération bi soxna Bamba nee na mi ngi woo section Touba section Njaareem section Dakar section Louga section Ndar section Mbacké section Kébémer section mbuur nee na daal bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul kenn nee na mi ngi woo section yi ci biir Sénégal gépp mu ngi woo xarit yi mu ngi woo taalibe yi mi ngi woo soppe yi ndax sëñ Cheikh Gaynde faatma kat bisam bii dafa doon bis boo xam ne nii sëñ Cheikh bàyyiwuloon benn kërug diine bàyyiwuloon kenn lislaam bee ko taxoon a jóg moo ko ñoroon nee na mi ngi woo ñépp nag ci bis boobu nga xam ne moom la ñuy amal ci njàngum alxuraan ak fàttali ku ko fi nekkatut nee na mi ngi ciy woo ñëpp nag di ñaan yàlla suñ borom bi ñu daje cee ngëneel ngëneel yi suñ borom rek tey ñaan yàlla suñ borom ñu tàmbalee ko bisimilahi rahmaani rahim egg alhamdulilahi rabil alamina tey ñu yàgg koo amal yàgg koo def yàgg koo teewee neena na nag mi ngi woo ñëpp nag bàyyul kenn bàyyul ñenn bàyyul fenn nee na Sénégal gépp mi ngi leen di woo bitim réew gépp mi ngi leen di woo ci bis boobu n xam ne amuñu lu may seen bis boobu mi ngi woo waa kër sëñ Cheikh Gaynde Fatma waa kër sëñ Bakke Mouhamed Cheikh Abdou Fatah ñëpp mu ngi leen di woo mi ngi woo ñëpp daal bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ci lii nga xam ne moom lañ leen boole ñu fas ko yéene ànd di ko liggéey fas ko yéene àndi ati ati ati ati at ci biir section Taïf bii ci kilifteenu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma Mouhamed ak kilifteenu soxna Bomba Silla mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi ak sëñ Cheikh mi nga xam ne mooy jiite wilaayu jeune bi sëñ Basirou Dieng sëñ Lamplo yéen ñëpp mi ngi leen di sant nee na di leen gërëm tey ñaan ci bis boobu ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim egg alhamdulilahi rabil alamin gaynde Fatma asalaamaaleykum yaa jamaatul muslimin asalaamaaleykum yaa kër ahlu xaadim rasul bu ngeen gisee jataay bi xam na xew-xew bu mag xew na ñu ko xewle section Taif reerukaay sëriñ Cheikh Fatma muy lan màggal sëriñ Cheikh Mbacke njabootam gu sell ga nga xam ne ña ci jiituwoon cee tey mag bokk na sëriñ Mbàkke soxna Lo Mouhamad ak Cheikh Abdou Fatah ak Cheikh Aliou Mbàkke Gaynde Fatma ak soxna Daba mboolem ñi nga xam ne jiitu nañ ci kër gu dëgg ga te nga xam ne ñooñ kër sëriñ seex Mbàkke la woote bii ñuy woote na ñun waa Taif muy 11 la 11 mars bis la boo xam ne bii nun dañuy reerukaayu sëriñ seex rek waaye islam bépp lañ koy wooteel ndax képp koo xam ne xam-xam ñoroon na la sëriñ Cheikh na ci xam loo xam ne nii wa islam bepp tek na ci tek na ci beut fi ba ci rew asiatique yi bu dee social ci walu ndimbal kenn ku nek am ñuma mag tay dégg sama kaddu gis nañ sen gis nañ ci sen wal kon kay euh, dafa tolloog am ñen ñen ñu ne rek dana am ñu ñoko ñoño ñoko dekkoo ko serigne Cheikh mom kep koy wotel bis ah l'islam bepp nga ko wotel ba taxna bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen mbol fuk section yi ak ñent képp ki wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan ñu ngi lay woo rawatina nag waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha premier xalifa nga xam ne moom mooy daaru daarul xuddoos ndax fii ma toog di woote de sikkuwu ma ne sëriñ Cheikh Bombali laa koy defal sikkuwu ma ne sëriñ Ahmadou Maxtaar daaru xuddoos laa koy defal waaye nag sëriñ Abdourahmane seen jëwrin sëriñ Moustapha Mohamed borom nëbboo ji seen jëwrin euh, ginnaaw ñun noo nekk fii di seeni i di leen ko fi wooteel kon mel na ne ñoom ñoo koy def bàyyiwuñ kenn ñu ngi soññ nag mboolem jàkka yi fépp foo xam ni mën ngaa jàng kaamilu alxuraan loo ca man ñu ngi la koy fàttali fépp école arabe nekk ginnaaw bu ñu ci jiitalee sëñ Moustapha Diom njëkk directeur général ak mboolem directeur yi nga xam ne moo leen jiite bëgg nañ li nga xam ne mat na juróom benn junniy élève wala juróom-ñaari junniy élève fépp fu école ne fukki ixlaas ak benn ya ngay def ca bis ba buñ ko boolee aw yiwu bari lay doon sëñ Moustapha Diop jaal bu tumaraxib fàtte wuñ ko ca asalem ak mboolem daale tarbiya yi ak fu waay mën a moo xam naboo ji la gerla la daru salaam la baylaa la fépp rek kenn ku nekk ñu ngi fàttali bis bii ndax bis la boo xam ne bii amul lu dul moom. kon ni ko gaa yu baax yi waxee rek bis boobu di ñëw nga xam ne mooy bisu màggalu 11 mars ñu fas yéene ànd ak yéen ci programme bi leen wax ni programme bi di tëddee kon bu ñu demee ba juróom-ñetti waxtu ci bisu 11 mars bi ba fukki waxtu ak benn diggante boobu ñu fay fas yéene jàng alxuraanul karim bu tedd bi ak ay xasida bu ñu demee ba fukki waxtu ak benn tegal fanweeri minute di 13h30 ba 15h diggante boobu nag dañ fee fas yéenee bu ñu jullee tisbaar ba pare da def fi li nga xam ne mooy xéwlu yi diggante boobu lañ koy def su ñu demee ba 16h30 jëm 17h diggante boobu ci la ñuy def dem julli ji tàkkusaan suñu julee tàkkusaan ba pare nag ba ba 19 heures di jot diggante boobu dañ fay bëgg a amal ziyaare bu mag a mag boo xam ne waa fédération bi ñoo ko fiy def si fédération des groupements maanaam ñi ëmb wilaaya yi yëpp ñoo fi dajee def fi benn ziar bu mag boo xam ne dañuy ziar sëñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma xalifa sëñ Cheikh Gaynde Fatma su ñu demee nag ba ziar bi jeex 19 h ba 21h ci la ñuy def julli jee suñu jullee jee ba pare vingt une heure ba vingt trois heures nag diggante boobu dañ fiy waajal bernde yi ak xewlu yi suñu demee nag ba vingt trois heures jot ci la ñuy tàmbali njàngum baas bi ñi ngi koy ubbee it rajas njàngum rajas ba minuit suñu demee ba minuit nag ba une boobu danañ fi ànd ak kuréel yu Taif yi minuit ba une heure dañuy ànd ak kuréel yu taay fii su ñu demee nag ba unner ba bët di set diggante boobu nag danañ ànd ci programme ak kuréelu isbu tarxiya gu mag gi ñu gën leen a xam ci isbu yu daaru xudoosi kon ñoom ñoo fas yéenee fanaanee guddi gi diggante euh, une heure ba bët set kon programme bi noonu lay demee ñoo ngi ciy woo ñëpp demee 23h euh, ba minuit njàngoom rajas lañ ci am ñu ciy ànd ak sëriñ Moussa Niang ak euh, Serigne Bachirou Mbow bu Bayla. bés baa ngi noonu altine lay doon yam ak fukki fan ak benn ci weeru mars ci atum 2019 fii ci Taïf ñu ciy fàttali na ko jàmbaar islam yooyu comme noonu ñu ko waxee Serigne Cheikh du Mbacké ak mbooleem doomam yi nga xam ne jiitu ji nañ jële ko Serigne Mbacke ba ci Cheikh Abdoul Fattah ak mbooleem ñi jiitu ji ñëpp bés baa ngi noonu ñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ñu ngi ciy woo ñëpp